Euh, seetlu nañ ko wala boo gis nañ hmm. vidéo yi donc di circuler sur internet mm-hmm. pourquoi ñu euh, def titre yi donc suñu rubrique tey donc euh, conscience citoyenne bi ñu gënee nekk xale El Hadj Mbaye Babacar Sène donc dañ doon dañ doon jàng suñu école yi donc li ñuy wax éducation civique wallaay mm-hmm. ak moral alors oh. merci beaucoup yàlla na yàlla yërëm <laughs> ak non baaxoon alors donc éducation civique dañu ko doon jàngal donc c'était l'occasion pour ñun ñu ñu xamal ñu yenn ci ay emblème yoo xamee ne dafa dafa bokk ci réew mi lii mhm. maanaam bu ñu génnee euh, ci réew mi fu ñu ko gis ñu xam ne lii yëfi Sénégal la bokk na ci drapeau bi bokk na ci alors le président de la république je mhm. parle pas de de de d'une personne mais l'institution président euh, bokk na ci aussi maanaam euh, euh, gaynde bokk na ci baobab bokk na ci bokk na ci yu bëri yoo xamee ne da daan kii donc lu nekk ñu buñ ko daan gis rek automatiquement bi nga nekk xale da ngay rendre compte que ni donc lii c'est quelque chose de d'important parce que au moins une mhm. fois deux fois dix fois mille fois wax nañ la ko bi nga nekkee donc primaire mais au fur et à mesure du temps ñuy dem dañuy seetlu ne dafa mel ni que yooyu dafa commencé di di di dañ euh, dañu commencé di démystifier yenn ci ay aspects euh, bokk na ci li nga xam ne que moom laay bëgg wax ni moom mooy tenue euh, wala homme de pour ko am wax loolu parce que boo xoolee alors ci ci ci ci inauguration bi maanaam yaayu énormément de personnes ñoo xam ne ñëw nañ fa ñu bëri bi ñuy dem alors par manque d'information xamuñu woon peut-être ne maanaam boo demee. da nga war a yóbbaale carton d'invitation pour nga mën a accéder ci stade bi. merci beaucoup. et il s'est trouvé que parce que man man ci jour bi ci bëccëg gi ay heures yi nii am na barab bu ma nekkoon kenn ci ñi nga xam ne ñoom laa fa nekkandaloon dañ ma laaj ndax da ngay dem man leen noonu du ma mën a dem parce que damay liggéey e dama ko ma laaj waa ji ndax am nga carte d'invitation mu ne ma encore ah, dafa am invitation ma foog ne noonu nag la ñuy demee. que li nga xam ne moom moo di communication bi. ci inauguration stade bi dafa des bu baax baax. dafa bëri faay. merci mhm. beaucoup donc il s'est trouvé que maanaam ñu mhm. bëri nag comme comme ñooñu comme yow par exemple am yëgoo ko woon bi ñu demee gis nga li fa jote xew alors frustration am na. ñu ñëw di forcer porte bi pour entrer pour dugg. Mhm. alors dem ba li nga xam ne man moo ma moo ma ci gën a moo ma déranger en quelque sorte mbay mooy le fait ñu def acte yoo xamee ne que dafay démystifier dafay dindi wala xotti war may mhm. alors tenu yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon bu ñu demee ba ci ay video ñu koy jël di wax ne alors homme de tenue yaa ngi daw bon je veux xam nga di jubilé donc mu nekk acte boo xamee ne que alors pour ces personnes qui ne comprennent pas mën nañu jàpp ne que maanaam ndam la wala bokk ñu ngi commencé di di di di ndam la en quelque sorte mais c'est quelque chose de très dangereux pour un pays parce que Thioro on n'est pas sans savoir que maanaam bu ñu bu ñu bu ñu lekkee ba suur bu ñu tëddee di nelaw ba ba yàndoor suñu sañee jël suñu alal investir ko parce que mm-hmm. donc dañoo jàpp ne que dëkk bi am na sécurité mm-hmm. et ñi nga xam ne ñoom ñooy def sécurité dëkk bi moom mooy ñooñu nga xamee ne que ñoom la ñuy gis ñuy taxaw ci xew-xew bu amee ci réew mi mm-hmm. ñooñu nga xamee ne ñoom la ñuy gis bu ñu déggee ne am na ay attaques yu am ci biir ci biir dëkk bi ñu ñuy gis ne maanaam suñu amee yéene pour organiser dara pour ñu sécuriser suñu alal pour pour pour pour pour bon pour faire comprendre ni alors ñun fi ñu manam rythme bi nga xamee ne que moom mooy bi yenn ci ay nit jël ci réew mi ñeme gi ñu ñeme homme de tenue euh, risque yi ñuy jël bu ñuy wax wala bu ñuy taxawee ci yenn attitude yi nii yenn humeur yi donc dafa dem ba dafay démystifier yooyu noonu te c'est quelque chose boo xamee ne que mënut a ñàkk ci ci am réew. donc dafay baax ñu xam ne que on se fait respecter ci kaw respect bi ngay jox institution yi nga xam ne moo am ci sa ci sa dëkk. Mm-hmm. on respecter ci kaw comprendre bi nga xamee ne yaa ngi koy jéem di def par rapport ak yow ak li war sa diggante ak institution yi nga xam ne moo am ci réew mi. Mm-hmm. donc du du ndam nit. nga téye homme de tenue di ko sànni xeer muy daw dundam ngay téye homme de tenue di ko saaga te waxul dara c'est pas parce que kooku noonu maanaam nit la comme yow d'accord mais le respect mooy tenue bi nga xamee moom mooy bi mu sol man j'ai toujours même bu ñu daan dem ci ay ci ay ci ay activité nawetaan sax maanaam loolu dafa yàgg nekk loo xamee ne su ma su ma su ma su ma daan ñëw gis ten homme de tenue mu taxaw ci porte sax maanaam mës naa ci am altercation mais mujj gi ma sama jëm bopp man maa demaat baalu Gémi Boy mm-hmm. ci kanamu ñëpp certainement ñi nga xam ne ñu ngi may seetaan peut-être ñu dëkk Tëngéej bokk ci mouvement nawetaan yi mën nañ seede li may wax. Mm-hmm. maa ngi nuyu le président Iba bu zone de zone de zone de Saint donc pour faire comprendre que ne am na yoo xam ne peut-être bu la fekkee ci yenn humeur yi comme li fa xew keroog li xew jam ñaajo keroog munuñu woon comprendre peut-être am na ñu nga xam ne dañuy dem bay wax ne peut-être euh, lu tax ñu def ko parce Euh, gémi wala gendarme yi ñoo la njëkk a mais parce que boo xoolee à la porte y a de personne ñoo xamee ne que ñu ngi woon di di jéem a forcer bunt bi. Mm-hmm. te ñi fa nekkoon ci homme de tenue vraiment mënuñu woon contenir nit ñooñu donc seen seul moyen pour ñoom jamono boobu moo nekkoon ñu gazé donc bu ko defee nit ñi nit ñi nit ñi daw et après gis nga ce qui s'est passé c'est c'est c'est passé malheureusement. Mm-hmm. donc euh, l'essentiel pour man ci euh, moment bii nii nii mooy d'accord. waxuma sax de manière spécifique alors inauguration bi mais ñu ñu ñu revenir quoi si si si benn mbir moom mooy intervalle cinq ans yi passe yi ñu yi ñu yi ñu jot dund nii en fait le constat est là mm. Sénégal yi dañoo gën a ñeme homme de tenue mm-hmm. dañuy gën di tutoyer homme de tenue et c' est chose boo xamee ne que maanaam ndaw ñu ñoo ci ëpp buñ koy buñ koy def mm-hmm. peut-être nag c' est quelque chose boo xamee ne maanaam am na ñoo xamee ne dañuy Euh, taxé comme quoi que maanaam euh, euh, média yi am nañ ci wàll parce que dañuy dem ba di jox kàddu yenn ci ay nit yoo xamee ne que dañuy dañuy dañuy dañuy am ay discours yu violent à un point ba dañuy inciter ndaw ñi askan bu ñu jàkkaarloo comme doté ñu ñu def wala ñu wax mais tey jii ni Pathé mën nañ noter jusque mhm. li nga xam ne moom di acte de civisme bi dafa des mhm. parce que nit ki tey jii je pense que ni ñëw ci stade stade bi fees na yow mhm. respecté nga sa bopp naw nga sa bopp dafa fees doo dem mais c'est c'est ça. maanaam nañ nañ ma baal mais dafa mel ni nite gi. Mhm. dafa dafa des am na loo xam ne ban importance lam nga jël ay xeer di xaañ ci loo xam ne nii Sénégal yu bëri ñoo ngi ŋàññ ñu ne liñ ci def dafa bëri. te ay fan ci ginnaaw ñu bëri ci ay at ñoo ngi doon naan amuñu suñu infrastructure yu motul. yow déjà yaa ngi jooy motul. Mhm. yaa ngi jooy liñ ci def bëri na. Mhm. et yow yaay jëlaat xeer yi di ko ci xaañ di ko ci yàq te demagul fenn. gan ci ay nit. gan xoolee. Mm-hmm. ay at yu néew ci ginnaaw. Mm-hmm. da nga daan gis mbooloo mu baree baree baree baree bari. Mm-hmm. làmb da daan am. wala yenn ci ay xewet am ay xew-xew. ñaar wala ñetti takk der wala kenn ngay gis ñu indi ko fa mu taxaw. wallaay taxaw gi muy taxaw sax du yor lu mu dóore. du yor ngànnaay du yor dara. waaye moom kenn wala ñoom ñaar dina maîtriser public ba fa nekk yépp Mm-hmm. parce que psychologiquement. dañu am lu ñu doon liggéey ak ak ak ak ak ak public bi cest à du woon. Mm-hmm. Euh, yet wala pistolet wala dara lu ñu mm-hmm. yor. mais tenue rek tenue bi. solal tenue rek. voilà xamoon ne ragal ku sol tenue bu njëkk taxoon na ba am na lenn ci ay dëkk yu nekk ci réew ñoo xam ne. mag ña defoon nañ fa loo xamante ni ku takk ku sol tenue du fa dugg du dëkk dugg ca dëkk ba far. gis nga war ma jin joxoon ku sol tëni mhm. ak wegeel gin ko joxoon mhm. dafa tàmbali di deñ di deñ ba fi mu toll nii mhm. mu ngi bëgg a jéggi dayoo te gis nga wolof day wax ne liy raam ci ñag bi la jëm wallaay gis nga nit dafay am lu mu dafay am dafay am ab tënk dafay am ab tënk faw mu am lu ko tënk ay limite am lu muy ragal gis nga bokk na ci yar bi nga xam ne mag ñi daan nañ ko yare euh, nit ñi bu njëkk dañuy fexe ba am lu la ragal loo bari na ci bari na ci biir kër gi yoo xam ne da nga ko daan def maanaam socc da nga daan socc guddi waaw yooyu nañ ko mës a waxtaane incha allah mhm. ñu ne la ku am baay lu socc guddi est-ce que xam lu ci mm-hmm. ndax booba électricité amul leeraay amul lampe amul. mën nga toog guddi di soccu am koo xam ne du la gis ndax lëndëm gi feme ju la soccu bi gaañ la ñu ne la ku am jëkkër. Mm-hmm. du fiiree ko guddi ràbbu nga doon yor ràbb xoola ràbbu am na koo xamante ni ci eh, benn xale boo xam ne dafa daan fowee ràbb su fowee ràbb su ko yaay ji teree mu bañ ñuy jooy yaay ji bëgg lu neex doom ji bàyyi kook ràbb gi muy fa ca rabu ga ci bët ba tëfëj bët ba yàqu ndee ba nekk mag rafet lool jekk lool waaye catam mooy bët bi mu laaj yaayam la ko ko def yaay ji di jooy ne ko bëggoon a topp sa bànneex rek moo tax parfois yërëm sa doom mhm. ak ak ak bëgg ko mhm. nekkul ci di ko di ko bàyyi ci yenn yi waaye dafay laaj ñaare nga nga duma ko wala nga xañ ko wala nga mettitloo ko mhm. wala nga ñàkkloo ko ngir bu ëllëgee. ñu mhm. jëlee ci am njàngat moo xam gis nga yii yëpp. Mhm. dañ koo bàyyi woon muy raam. ah moment moment bi ça devient compliqué Assane oui. déjà dans cette si si si sama analyse. Mhm. Euh, Mbaye mi ngi wax euh, ragal. en fait on doit pas avoir peur des des hommes de tenue. du mun warul nekk du yoon. dans un pays normal. on doit pas avoir peur des hommes de tenue. dañ leen war a ki lay protéger. mënoo mhm. koo ragal. Mhm. c'est-à-dire boo amul sécurité si kanamam. munoo am sécurité feneen. mais ah, surtout nag. dafa ñàkk ragal ça ne veut pas dire ñàkk a mhm. il faut que les gens comprennent ça. te loolu moom moo amatul. et du ndaw ñi kese ah. certes ndaw ñi ñooy def acte yi ñooy saaga ñooy sànni ñooy dóor. mais daa am ñu ko tàmbali. Euh, fi mu tàmbalee mooy la classe politique sénégalaise. il faut le dire en commençant par ses dirigeants. Euh, de ce pays là. Euh, bu fekkee imagine les les corps d'élite. Mhm. ay ñoom bip. gis nga boo leen déggaan je je parle pas ñu génn leen mhm. mais boo leen déggaan yow doo génn. aujourd'hui ay ñetti xale dañuy génn di marche fii nga génn génn fa bip. ñu jàkkaarloog ñoom sànnante xeex. Ah. nan la jéem rek jéem yow foofu dafa soxla jéem jéem rek daawoo ko dégg. c'est ça c'est l'état qui l'a fait. Mhm. mënuñ jël lépp. teg ko si si ndoddu gone yi wala ñu teg ko si ndoddu policiers yi nga xamante ni policiers yi ils reçoivent des ordres mhm. ay ordres lañ leen jox ñu génn nekk ci télé bi di encadré mhm. wallaay ndeysaan ñiy joxe ordre yooyu mhm. ñoom ñoo def problème bi état bi ñu nekk marche manifestation du loo xamante da ngay da nga koy ñaan da ngay yëgle ñi ni wit di ànd ak ñoom nun tudd xaw ma nun tudd bu ñuy politique ñi niy àndal nga xam ne ñaari dañuy ah, sol ah, ay tëni seen groupe raay waaw ñaari ñu sol ay tëni wallaay ah, am na tëni yu leen kii yenn saa yi ñuy ñuy duma waate yooyu yëpp riposte boobu boo demee ba tàmm ko maa ref taale ndaw dafa ànd ak dangar dafa ànd ak xadar mm-hmm. am na yoo xam ne boo ko eh, naree teg mu jàkkaarloog yow mm-hmm. loolu waruñu woon egg à ce niveau là ak suñu homme de tenue yi ce qui s'est passé au stade mm-hmm. c'est inacceptable inexplicable indéfendable Ah, amul kenn koo xam mën na ko défendre mais Fatima mi ngi koy wax on ne peut pas mettre plus de cent cinquante milliards de mm. nos francs si stade bu mel nii Afrique yëpp naaw ñu si aujourd'hui euh, ñu si ñaan mu amaat yeneen mm-hmm. parce que amaguñ li nga xamante ne mun nañu permettre ñu organiser une euh, CAN ici c'est jour inauguration bi ñu commencé koo yàq y a des vitres qui ont été cassées mm-hmm. par te président ak ay ganam ñi ngi si biir stade bi jamono ji nga xamante ne ñu ngi sànnee xeer donc jigéen ci ñu bañ ngeen buruxloo ñu nee leen fees na yow ngay xaañ xel bëgg burux maanaam yow sa jàmm yaram lañ la bëggal yow nga dee du fi amee benn mbir bu malheureux mooy par eh, par par malchance wala boog par malheur sax encore une fois excusez-moi de la répétition bu ñu defoon sage stade bi mu am jéyee bu fa xew ce qu'on va se dire mooy liggéey bi baaxul liggéey bi baaxul moom laa lay wax nii gis liggéey bi baaxul su booba en fait la responsabilité ñu ngi koy def ci ci ndoddu état te man man encore une fois ma ma répété benn mbir c'est-à-dire l'essentiel pour man quand je parle de ça moom mooy que ñu bàyyiwaat xel ci importance su tenue c'est-à-dire loolu ça ñun ñëpp la que muy ñun en fait les civils que muy ñi nga xam ne ñoom ñooy homme de tenue mais aussi que muy que muy l'état comme comme Assane ni mu ko waxee les ñi nga xam ñoom ñooy joxe ordre yi. Euh, parce que tamit quoi qu'il se passe maanaam chaque jour damay revenir ci li ñu doon wax c'est-à-dire nga euh, stabilité réew. ci homme de tenue la. la mhm. la mhm. lay lay lay sukkandiku. bon waaw ayca Thioro. Euh, comme Assane li mu wax rek loolu laa koy fekk si mooy euh, dara expliqué wul li xale yi def. Mhm. parce que buñ dee wax xale yi rek. sax dañuy parce que man gis naa ci ay vidéo yoo xam ne mu ngi circulé léegi nii rek gis naa ci ay maire. yoo xam ne musóoru la ñu def nga xam ne ñii du ñu ay jeeg yu ndaw ay maire lañu. am na ñaar ñoo xam ne ñu ngi doon exprimer wu di wax ni. ñun bëgg Macky sàll moo ñu fi andi. kenn ki solu dàll kenn ki benn dàll la sol kenn ki solu dàll. mu nekk nag vidéo boo xam ne nii vidéo bu jara xoolaat la. ay maire lañu ñu ngi sol yëre kii musóoru def yëpp nga xam ne ñi ay magum jëmm lañ. ñëw nañ ba ci buntu stade bi nee nañu lacrymogène yi ñoom ba mu leen dalee. Mhm. kenn ki neen dafa xëm moom di wàccu. Ah ñoom ñëpp ku ci nekk di di donc mënoon a jur yeneen jëye. Mhm. lu jara bàyyi xel la mais su loolu bu ñu xuusee dëgg dangay ñëw ñu partager responsabilité responsabilité yi li ki ñi ñi ñi njëkk a joxoñ baaraam mooy mhm. état état mi nga xam ne tey ji moom moo defar joyau boobu ah. tax tey ji ba sénégalais ñëpp am fugu dem mhm. ngir euh, jariñu ci waaye tam euh, fekke euh, fet bi nga xam ne ñu ngi ko doon def mhm. mais tam lan mooy rôle démb wax ngeen ko tey wax nañ ko mm-hmm. Mm-hmm. état fayir na ci euh, organisation bi mm-hmm. ak millions yi nga xam ne ñu ngi koy dégg donte ne leeralu ñu ñaata million lañ ciy def euh, disposition sécuritaire bi euh, posé woon na problème parce que moo tax mënuñu téye nit yi ba tey ay lacrymogène génn suñu ay naataangoo tey jii monde bi yëpp di ñu seetaan xam ne ñun lañ ñu cërale woon ak lañ ñu jagale woon am na loo xam ne ni wàcc nañ ko ci waaye tam président yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci biir tey nekk ay ñi nga xam ne ki nga xam ne moom moo doon Euh, président Macky sàll yóbbaale li nga xam ne tey ji moom lañu yóbbaale que sénégalais am nañu tuuti indiscipline bu nekk ci ñoom euh, beneen bi mooy euh, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo demoon di sànni mm-hmm. sànni bi moom dara waru ci dara waru ci mais nañu xam ne tamit bëgg seen réew mm-hmm. ak kontaan ci jëf gi nga xam ne ni tey jii moom mooy stade boobu ci am na ci fee jam ñaajo mm-hmm. moom moo leen yóbbu sénégalais ñoom ñoo ton foo xam ne ni tey jii loo leen defal ñu bëgg parce que dañu sonn seen xol yee dagg loo leen defal ci lu ndaw ñu bëgg Fatima wax na ko léegi luñ doon xaar la budget boo xam ne dañ ko doon xaar la donte ne ay mili milliards lañ ci def milliards yooyu sax sàng nañ ko ndaxte seen xol neex na mhm. donc ñooñu waroon nañ leen a jëlal disposition yoo xam ne ni tey jii nikkikat ki nga ne ko ah Euh, stade bi cinquante mille personnes lay jël su amee quarante wala quarante et ñu yemale ko fa li laay communication bi am nañ ba ay waykat dem fa ñu yëkkati te waykat yooyu ku ci nekk xam na ne hmm. euh, euh, seen vidéo yi rek ñu soog a dem ku ci nekk yaa ñëw bi nga xam ne ñu ngi doon def après hmm. dinañ ci gën xuus après ak la communication bi ñu ci def communication bi baaxul am na lu ñu xam ne loolu lañ ko communiqué mais hmm. communication fees fa baaxul ça veut dire que ñoom tiitoon nañu pour kan moo war a feesal stade bi mais ñaar ñaar coro ma xam naa peut-être foofu laay daanelee euh, hmm. euh, Fatima benn bi mooy am na man une personne que j'ai vu boo xamee ne que lan lan la ma wax mooy lii am na lu ko mën expliquer hmm. mooy am na xale yoo xamee ne que dañoo gis seeni moroom yor ay carte te ay politiciens ñoo leen ko jox c'est-à-dire distribution carton d'invitation yi dafa jeng dafa demee boor di wane xam nga benn loolu mën naa ko nangu mm-hmm. mais damay ñaan aussi alors dañuy ñaan rek les hommes de tenue mm-hmm. Assane nañu bàyyi le terme dégage mm-hmm. non nañu bàyyi le terme dégage dañ koo bëgg dégage ma yokkalaat la leneen ma yokkalaat la leneen ci diggante homme de tenue ak population bi gis nga li xew ni Sénégal moom mooy déterminer li fi réew mi toll Sénégal la fi xew nii fépp bi fi am ni mooy déterminer fi mi tool te bu leen fàtte ne en 2011. Mhm. nga xam ne tey moom moo nekk président de l' nationale. Mhm. ci jamono jooju ñoom ñu opposé wu mhm. jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo takk der yi dafa gàddu woon xeer di saaga ay ndey bu leen fàtte loolu tam donc donc li am nii dafay déterminer ñu ci sunu réew toll <laughs> noonu ah, ah, ah, en tout cas coro xam nga Assane euh, mhm. am solo sànq mhm. ki nga yaakaar ci moom ak wàllu soo fekkente ni moom ci boppam daf lay lor dafay dafay doy waar ñaare tamit comme baat bi ngay wax dégage takk der yi tamit dañ leen di ñaan ñu xam ne citoyen yi ay citoyen lan mhm. te bu nu jaaxlee ci ñoom lan war a dem ngir mu wàllu leen waaye nga yaakaar takk der nga ñëw ci moom mu brutaliser la. Mm-hmm. Mm-hmm. daanaka mer wax la wax de bis boo amee ci. da ngay yaakaar ñoom rek maar di taal. loolu la dafa dafa dafa dafa dafa xaw a doy waar trop parce que ñoom. <laughs> Mm-hmm. dafa mel ni daal euh, ñoom tamit jox nañ leen worma parce que tenue la ñu sol. ay grade lañ takk ay galon lañ takk ñu jox leen war ma mais tey ji ñu nekk euh, ay homme de tenue ñun ñu nekk civil warul tax ba respect du am parce que la respect il est mm-hmm. une personne qui vient envers toi di wax ak yow kooku tey ji boo ko respecté wul am na noo koy tontoo rek moom tamit day fippu parce que nit ku nekk nit nga paate ma bàyyi la nga tàggatoo mbokk téléspectateur mais bëgg ah kontaan à chaque fois bu ñu waree ñëwaat ci plateau bi jàkkaarloog sunuy sunuy sunuy soppee donc euh, di euh, beral alors euh, le cercle des amis de Maréchal. Mm-hmm. Serigne Gueye euh, sinon Serigne Diop autant pour man maa ngi koy nuyu.